على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم القائل من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وأمته أفضل الأمم كما قال الله في محكم تنزيله كنتم خير أمة أخرجت للناس وبعد السلام عليكم فالسلام عليكم جميعا أيها المستمعون والمستمعات أحييكم بتحية الإسلام تحية الأنبياء تحية أهل الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله مبوك ييغا خامن ني ني ديغ ديغلو دي نيو سيتان نيوغي لين دي نيو كين كو نيك سي تورام اك سانتام غناو يالا ميغا خامن مو نيو بيند تا نيو نانان كو جامو جولي جي يوننتي صلى الله عليه وسلم بيغا خامن يالا مو ني سانت ني جولي سي موم سي تيرم بو ماغ بي دي القران الكريم يالا ن ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ñu len di ndokkel ci at mu bes mi ñu di leen ndokkeel it ci at mi nga xam ne génn nañ ci di leen ndokkeel itam ci weer wi nu nekk waaye di leen ndokkeel itam ci bis bi nu nekk di leen ñaanal yàlla li nga xam ne moom leen ñaanal sunu bopp muy jàmme àddina ak alaaxira yàlla xëy ñu ci ñu jaamu ko te buñ ko jaamoo mu nangu ko mu mel ni Euh, da ngeen may laaj ci wàllu tamxarit wàllu tamxarit manis na cee wax lu yaatu manis na cee waxitam itam lu nu tënk waaye yaatal lam xajul ci benn émission xajul ci ñaar xajul ci ñett lis di topp lay doon diir bu yàgg waaye danañ ci tënk rek comme yàlla dogal na fii ci Sénégal ñu baaxoo fi di ko màggal moom tamxarit yu baree baree bari ñu ko ciy def yenn yi mi ngi ci téere yi yenn yi itam di yoo xam ne yu nu aada xoola di ko def mu mel ni am na ci nag loo xamante ne nii han am na ñu koy sikkal di ci wax ay wax waaye am na ci loo xam ne ñàkk teylu la ak ñàkk seetlu waaye bu nu teyloo te seetlu dëgg-dëgg am na ci yoo xam ne ci tamxarit yuñ ciy def la nan ko bàyyi noonu bu ko kenn jiima sikkal wala ñu koy jiima koccal ndaxit am na ay sukkandikuwaay yu wér yoo xam ne képp ku diglu lii ñuy bëgg a wax da nga xam ne am nay sukkandikuwaay bokk na ci yi nga xamante ne nii han ñi ngi koy def ci tamxarit koor gi nga xam ne danañu ko woor bisu bi ni wax tasuwaan muy bisu juróom-ñeenteel muy bisu tey bi ak bis bi nga xam ne mooy bisu suba bi muy asura di fukkeel koor googu ci yéen ciy def ci la bokk. bokk na ci li ñuy wax bégal sa njaboot mooy fexe ba bis bi nga wutal ci sa njaboot loo xam ne ci wàllu ñam lu leen di bégal lay doon bokk na ci yéen def ci bis bi julli diis na ko ci def euh, am na ay ñaan yun ciy def ci hasbunallahu wa ni'mal wakiilu ak yu mel noonu danaa ci ñëw ci li may wax lépp nag dama yor ben téré bo xamné ngir ñu xamné limay wax du sama waxi bop waye waxi ju wér ci téré yu wér mom lay netli motax ma téré téere bii dañuy wax ne tam xarit yi nga xam ne danañu mat na ci mbir mbir ak ñaar yoyu ben way kat way na leen nee sum سلسل زرع لمن عد وكتحل رأس اليتيم صح تصدق واختزلا وسع على العيال فرن إخلاصي أدل فن نينا شفوك تنبير جروم ناري ديسنا كو تدف يويا موي لن موي كو بسو عصورا موي بسو سوبي نغاوركو mooy julli am na naa xam ne ñeenti rakk lay tege mooy jokk ci mbokk bi ci tege mooy siyaare ci boroom xam-xam ba ca tege mooy tus nga lu ci ba ca tege mooy raay ci boppam jirim ba ca tege mooy saraxe ci bi ci tegee mooy sangu ci bi ci tegee mooy yaatal ci sa njaboot maanaam bégal ci sa njaboot ci guddi gii ba ca des mooy lelli ci say we bi ca des mooy jàng ci xul wallaahu ahad fukk junni yoon muy xul wala ahad junni léegi nag fukki mbir yooyu ak ñaar benn waykat way na ne walam yërit min si siwa saw mi kasaa tawsiatun wa xayru haza intabisa nee na fukki mbir ak ñaar yii ñaar dong moo ci rot ci sunna mooy lan mooy koor bi muy koor bisu asuura bi bi ci tege mooy bégal ci sa njaboot mooy tawsia yaatal njaboot gi bégal leen ci ñaar yooyu moo ci rob ci sunna yeneen yi ci des rotuñu ci sunna ci comme formalité bi nga xam ne ci lañ koy defe waaye nag boo leen toppee benn par benn yépp ñu ngi ci biir sunna ñu ngi ci biir alxuraan te yu ci nekk danaa ko wax kon bisu asuraa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na sawmu asuraa ahtasibu ala llahi an yukaffira sanata allati qablahu yonent bi nee na woor bisu asuraa muy bisu suba bi nee na danaa ci faggu yàlla kafaaraal ma ci bàkkaari at mi ma génn mépp maanaam bisu asuraa bii muy suba ku ko woor yàlla nangu sa koor yonent bi nee na dana la kafaaraal bàkkaari at mi nga génn yëpp maanaam tam xaritu daaw ba tam xaritu ren bàkkaar yi fi yëpp koor googu dana ko effacé loolu la wuuteeg woor bisu arafa bisu arafa woor ko dafay kafaara bàkkaari at mi nga génn ak bàkkaari at mi nga xam ne ci ngay bëgg a dugg si muy ñaari at kon moo tax ñu ne bisu asuura bisu arafa moo ko ëpp doole parce que bee dafa nekk muhammadiya bii di muusawiya bisu asuraa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ñëw madinatul munawwara fekk yahood yi di màggal bisu asuraa di ko woor mu laaj leen lu tax ñu ne ko Muusa ci bis bii la ko yàlla musalan ca noonam ya muy na ak xibtu ya bis bii la leen yàlla labal banoo Israa'iila mucc yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen ñun ñoo leen gën a yey ci Moussa ndax moom Moussa mbokkam la ci ñoom ñaar yonent lañ daal di wax léegi kon ñu di ko woor woorog coobare nag du ko fàtte coobare ba nga xamee ne mi ngi koy woor saaba yi ne ko ah yaa Rasulullaah de ñun dana niroo ak yahudi ci woor bi su asura te ñun dana war di ñàkk niroo ak ñoom yonent bi ne kon de bu déwénee danaa wóor bisu taasuwaa bi muy bi jiitu muy bisab tey jii su ko defee ma wóore tam asura bu ko defee ma mën a wuute ak yahudi yi ñoom benn fan la ne woor ñun ñu woor ñaari fan da ko waatal ne bu déwénee giñ naa ne danaa ko woor yàlla dogal ba déwén di laata jot yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di far génn àdduna daf na la in ba kayitu giñ naa ne ndeem des naa ilaa xaabilin jëm ba déwén ba déwén la asoo man na danaa woor ak taasiya ci addis boo xam ne imaam muslim andi na ko moo addis bii ma jëkk wax yépp mi ngi ci saxiixu muslim ba nga xam ne ne déwén ba déwén di laata jot yonent sallallahu alayhi wasallam génn moo tax moom jot a woor taasuwaa muy bisab tey ci taasuuraa bi moom la daan woor kon sax na ne kon woor bi su asuuraa kon sunna la ba tey tuyaaba ju baree bari mi bu dee ci wàllu bégal njaboot gi bu dee ci Sénégal ñu ciy def ay cere cerey ganaar cerey yàpp cerey leneen cerey leneen loolu itam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci léegi ab hadis boo xam ne ca loo ca la ca la ca la loola jugee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne képp koo xam ne bégal nga sa njaboot ci bisu asuraa muy guddik asuraa ku ci bégal sa njaboot nee na yàlla suñu borom subhanahu wa taala dana la bégal ci mboolem at mi yépp addis baa ngi nii man wassaa ala ahlihi laylata ashuraa wassaa allahu alayhi saaira sanati képp ku bégal sa njaboot defal leen xéewal bégal leen ci bi ci guddik asura muy guddi gi bu jant bi soxla guddik asura tàmbali na ba ba fajar di xat nee yàlla dana la bégal ci at mi yépp léegi nag addis bi am na ñu ne wérut am na ñu ko wax waaye nee naa la may wax maa ngi koy sukkandiku ci téere bi mag bii di sarxa xalil bu ñuy wax lawaami od dora ku ne xam ne muxtasaru sayqul xalil ci ngir imam malik waaye sarxaan bii dëppoo na ne mazhabu malik saraa yi ci gën téere yi ci gën matale gën cee làmboo ci la téere bi bokk borom téere bi wax na ci bopp téere bi nee na masala mu nekk bala ma koo bind damay teewlu xalaat keroog boo xamee ne yowmal qiyaam jot na ma taxaw ci kanam yàlla mu jàkkaarloo man face à face ne ma lii nga waxan foo ko teg nee na masala mu ma ciy bind loolu laay teg ci sama kanam door koo bind kon yaakaar naa ne nitu yàlla ku day noonu boroom xam-xam bu day noonu ragal yàlla gu day noonu mu am ko bépp addis bu mu jël reconnaître ko ci téeram jërëtu sax wax xadis nag dana dana ni wérut min xaysu ñi nga xam ne ñooy topp addis ci ni koy toppee te fekk sax wérul dana ne addis bi wér na min xaysu ñuy topp addis ni ñu koy toppee te fekk addis bi wérul moo tax boo demee ci mustala addis it dalay wax ne la maanaam wér na wala wérul waxuñu ko bil waaqee ca la am yonente bi ko xool waxu ko déedéet dañ koy wax daal ci kem tëralin bi nga xam ne ci la ñu seggi hadis tëralin bi nga xam ne ñoom ci lañ koy seggi boo demee ci al-Istidhkar da nga fa fekk hadis boobu Seydina Umar ibn Khattab radiyallahu anhu di ñaareelu kalifa yonent bi sallallahu alayhi wa bokk na ci ñi nga xam ne daan jëfandikoo bégal njaboot gi ci bisu asuura Seydina Umar ibn Khattab doy na référence sëkk ci diine Jaabir ibnu Abdullahi xaritu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk ci ñi gën a bari addis yun solo ci la bokk bokk na ci ñi nga xamante ne nii daan nañu jëfandikoo bégal njaboot ci bisu asura ak ñeneen boo ñëwee ci borom xam yu mucc it ku mel ni ci boppam Yaxya ibnu Saïd ku mel ni Sufyaan ibnu Uyayna wa xayrihi min al mutaaxirin kutubu xaddis yi itam ah, boo demee da nga ko da ko ca fekk ci lu mel ni ci boppam Tabaraani dégg nga de ci alkabir ak yi yépp boo fa demee ba ci al bii ma la wax da fekk da fa fekk jëfandikuwaay wii ak hadis bii ni ma la ko waxee nii. léegi nag su fekkee na yonent bi sallallahu alayhi ku bégal sa njaboot ci laylatu asura guddik asura yàlla dana la bégal ci am yépp te jaabir ibnu abdullahi mii nee na ñun nattu nan loolu fa wa jarrab naahu fa wajat naahu kasaalika nee na loolu yonent bi ne ku bégal sa njaboot ci guddik asura yàlla dana la bégal ci at mi nee na ñun essayé nañ ko gis ne am na ko ay yoon bégal njaboot gi ci laylatu asura yàlla mayuñ ci at mi yëpp mbégte nee na jarab naahu fa wajat naahu kasaalik da nga wax léegi bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ku bégal sa njaboot ci laylatu asura yàlla dana ci at yëpp mooy kon santaane na ñu di bégal ci njaboot Sénégal ñun lim ci xam ci lekk ak guddi mooy reer lekk ak bëccëg añ lekk ak suba teel ndékki ñun Sénégal moom loolu moo fi habité léegi nag kon bu la yonent bi ne bëggalal sa njaboot ci guddi gi ci loo leen di bëggale ca reer ba reer itam ci Sénégal ca jamono yu jëkk ya jiitu sunu jamono la gën na not ci reer yi mooy cere ba léegi nii sax man nga ne li gën a not ci reer yi mooy cere ndax boo demat ci àll bi yëpp cere la di reer wala ñu ci gën a taax yi sax léeg-léeg ñu reere nag kon soo bëggee bëggal sa njaboot reer bi moo fi nekk ci guddi kon reer ci la nekk reer yi la ne renforcer pour pour njaboot gi bég ci mag ñi nag ban daan reere cereeg ndox wala cereeg mais wala cereeg mbuum wala cereeg dimbu ñu bàyyi ko kon bis boobu bu jotee ñu uti ay ganaar uti yàpp def ñeex mu neex teg cere yi def ci cere ak yàpp wala cere ki ganaar njaboot gi bég ci loolu kontaan ci lekk ci ba suur seen xol seen dugg yi pour bëgg a bégal njaboot gi ci yonent bi ne ko bégal sa njaboot ci guddi kon boo bëggee xam cosaanal cere mooy lii cere reer lan xam ñun Sénégal lekk guddi reer lan ci xam reer di cere ci notam booba cere jooju ne boo ci bëggee bégal sa njaboot kon danga koy renforcer ba mu gën a neex nam daan mel ñu def ko ganaar wala yàpp wala leneen ak leneen ak leneen njaboot ga lekk ci ba suur am mbégte yaa ngi dégg wax léegi koor gi kon jàll na bégal njaboot gi jàll na ñaar yooyu fukk ak ñaar yi ñaar yi la ne moo ci rot ci sunna muy ñaar yi ma wax nii yeneen yi ci des ma ne rotul ci sunna ci formalité bi ñu koy defee waaye benn nga ci mënta dàq ci sunna de boo ci bëgg dàq ci sunna ba muy tudd farmoota nan ko topp benn par benn ba ci koor gi jàll na julli julli naa fi la ku ko man a dàq kenn mënu koo dàq yàlla yonent bi bañ na ko ba ne yàlla nee na sama jàdd du deñ di ma jege bind waa fili ci ay naafil la ba ma bëgg ko su ma ko bëggee man maay doon làmmiñ wa mi waxe maay doon loxo ya mi ngëbe maay doon nopp ya mi déggee maay doon tàmp tànk ya mi doxe su ma ñaanee ma may ko giñ naa ne bu ma mus la ko musal ko lo xamne man duko top ba yalla ne la yow legi yow legi danaka sama jëm ga may sa lamme may say loxo may say tank wa lu foore nonu ku ko ku koy ku te yoonent bi def ne gannaaw bu jambi def fa fataat pare yalla neena sama jambi du dañ nak dima ma jege ci ay nafila ba mo bëgg ko kon nafila ko ko mën dak amut bu dee nafila la même def di mbolo bo demee ci muxtasar Sayyidul Xalil daf ne nafila yi nga xam yoonu yóonaluñ ci mbolo sib nañ def ca mbooloo sib la wax de waxut araam sib nañ def ca mbooloo ci place bu fés te mbooloo ma bari ñaar yi rek la wax su dee place ba fésut ci biir kër ngeen nekk wala mbooloo ma bëriwut sibuñu ko ndax yonent bi def na ko ca dégg mu lay kër mu lay këtu ja maamu Anas ibnu Malik naafila na fa ànd mbooloo yooyu kon léegi naafila gi moom julli gi moom tegal na leen kenn ñëwut a fekk kuy julli nga def ko li ngay def daal kooku ñax la bon ku ca tege sànni bu ca tege mooy seen jokkal mbokk jokk mbokk na jokk mbokk moom kan moo ñemee taxaw ne jokk mbokk bi daal alquran wax jokk mbokk yonent bi li mu wax ci jokk mbokk yonent bi bañ ko ba ne mbokk ci boppam yàlla daf naan